aktaayu élection législative yi 1er juillet bi ñoo dégmal association nationale bi ñoo dippee éducation pour la paix ñoom nag ñoo sàkku rek lépp xewee ci jàmm loolu sabab nag ab caravane de sensibilisation bu ñu amal di wër di waxtaan ak askan wi waaye itam di rek ñaax way politique yi ngir rek li nga xam ne moo fi ci campagne électorale présidentielle yi bañ fee am maanaam ay jàmmaarloo ba am ay bakkan yu rot Omar di ci àddu ñu teewlu rek kàddu yi nga xam ne dénk na ko Ndéram Touré. daje li nga xam ne ni moom lañ si bëgg mooy def sensibilisation peuple sénégalaise si technique de vote yi nga xamee ni nit ki moom la war a def su demee si li nga xam ne mooy bañ gàcce bi muy législatif yi parce que dañu seetlu saa yu élection amee da ngay gis am na ay nit yoo xam ne dañ siy profité di toj oto yi di baare télé bi di siif alul jàmbur am na ñoo xamee ni tey euh, bokkuñu si waaye dañoo jël li nga xamee nii tey mooy seen doole di ko utiliser si kaw doomu aadama yi ñu xool ne loolu c'est pas normal jaaduwul léegi nag lii nga xam ne moo waral jataa bi rassemblement bi mooy ñu ñaax peuple bi ñaax sénégalais yi ça li nga xamee ni tey mooy violence yi ñuy faral di gis si élection yi ça que mu bañ a am ñu prêter attention si li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy violence yi nga xam ne ni moom lañ siy gis léegi nag na ñëpp dem voter ji si jàmm retourner si jàmm toog seen kër naan ataaya ak seen i njaboot faut pas ñuy taxaw si mbedd bi di def ay rassemblement di regroupé wu wala ñuy duglu seen yoon nekkul wala ñuy baare ay tëli wala ñuy du tooñ wala ñuy def leneen bu ndomin rayee sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw comme ñun tey dañoo jóge si ay événement yoo xam ne li si dee si ay doomu aadama kenn xamul nu mu toll te ba léegi laa wax ni jooy nit ñaa ngi jooy noppeeguñu loolu nag lañuy bañ si pour toujours moo tax dañuy dañuy teel a wax doomu aadama yi li nga xamee ni mooy violence yi faral di am bëggatuñu ko gis si sunu dëkk